fi jam fekkat fi jàmm kon nak salaam mbok ak xarit ñuy seetaan ci Sénégal TV dal len jam ci sen revue de presse quotidienne ndax bu ngeen xam kër yéene kaay lan leen fësal tay ji kon nak bismillah ñu àndandoo xos ci biir jàppason actualité xeesloo yàpp loo la ca xaalis ak sibaaru dugub ñoo yem fépp foo ko teg mu ruus fa yéene kay bi ñu naan le populaire daal di fësal mari taw ñaan mooy jëwriñ ji nga xam moom lañu dénk wàllu njàng mu kawe mi nee na nag def nañ audit ci fa nga xamoo di ministère am gis fa nag jiixi jaaxa ak luubal yoo xam ne teg ko ci ndodom fi nga xamoo di université Gaston Berger bi nekk fi nga xamoo di Ndar nee nañ ci walu liggéey amna na ñoo xam ñi ngi xey ci ñu leen di fay ci kenn gisul seen tour fenn fo xamni ne xamni ñi ay agent la yoo xamna lu bok ci université bi ci walu dépassement budgétaire 52 millions tegu na ci leen xam moo doon budget bi ci xaalis boobu ba tey kenn xamul fan la jaar amna ay billets d'avion yo xamni ne jënd nañ ko fi nga xam moo di Air France ci ñu war a tukkale ji ay jàngalekat kat yo ni ay stage lañ war def wala ay recherche de fin d'étude lañ ko war def ci jotagul ci loolu lepp xaalis la bo xamni ne dépensé nañ ko ba tax na ñi nga xamni mo ñu doon def audit bi nee ni faw nak ñu dellu ci la nga xam moo di orthodoxie maanaam liggéey boo xam ca njaal bi ba koy teg ci nga xam mu di yoon bés du tuuti borom lay tolloo l'observateur daal di fësal Serigne Mansour si Djamil moom nag joxañ na fan la joxañ fi nga xam mu di réew mi Serigne bi nee na kii di Idrissa sekk am na proposition yu mu ko def maanaam waxtaan na ñoom ñaar waxtaan boo xam ni danga ko xumtoo ci biir nekk li Idrissa sekk bëgg mooy wàllu Thiès ak Tivaouane ñu boole seen i doole diggante réew mi ak bés du ñàkk ngir ci élection locale yi ñu mën a lëkkaloo pour jël li nga xam mooy siège dafa ne Serigne Mansour Sy Djamil nii nag ah loolu nag faw ñu xolaat ko def mel ni bés bu ñàkk nag am na ay militants de base yoo xam ne ñi ngi Thiès ñi ngi fi nga xam moo di tuwaawoon ca Idriss Seck xam na leen ña waxtaan ak ñoom ñoom lu ñu gis rek moom ànd na ci sëriñ bi nee na APR nekk na parti boo xam ne dafa minoritaire ñu bëri dañuy juum naan 65 pour cent des sénégalais ñoo fal ki nga xam ni moo di Macky Sall bu booloo woon sax day jàll neen loolu du dëgg 26 pour cent la am ñëpp moo tax mu daal di jàll ci deuxième tour bi doole jooju nag bu ko kenn xeeb kii di Moustapha mooy jëmm ji nga xam ne mun nañ ko bàyyi mu diriger li nga xam moo di assemblée nationale parce que ca dëgg-dëgg nag am na posture bi nga xam ni mën na ko yóbbu ki nga xam ne mooy sëriñ Mansour Sy Djamil nee na suñu moytuwul élection local yi ñu jël nag Benno Bokk Yaakaar fa lay jaare nag daal di tas te dina nekk loo xam te dëgg-dëgg dina yëngal làngu politique bi. jamono yi am na jëwriñ yoo xam ne bu ñu tëddee guddi duñu nelaw lan moo ko war waral dafa mel ni borom ndëkki képp ku ko njëkk a yeewu tëddaat kooku mooy président Macky Sall le populaire daal di fësal ni mi ngi waajal remaniement wala dina réménagé waat li nga bi jël ñi teg leen fii jël ñi rocc leen jël ñi leen dugal leen mu mel ni jamono yi bëri na ñoo xam ngi toog ci ëttu président Macky Sall di xaar mu dugal leen def li nga xam moo di ministre am na ñoo xam ni ci beneen bunt ba la ñuy jaar dañuy génn waaye président Macky Sall loolu daf ko làq di ko xumtoo ci biir xelam nee nag suñu moytuwul laata ñuy war yi dina génn liste boo xam ni ca dëgg-dëgg bu ñu xoolaatee gouvernement bi yuuxu dina jib fu ñu ko foogewul parce que liggéey la bëgg ca lim doon xaar ci jëwriñ yi boobu ba léegi nag gisagu ko coow la ca police ba dafa mel ni boobu ba léegi wuregul yene kay bi ñu naan l'observateur dëkk ci nga xam ni Serigne Bassirou Gueye soo leen ko déggee mooy procureur bi nga xamante nii ci wàllu justice ci wàllu yoon moom lañu gàll ndomba tànk bi yëkkati na ay kàddu ci mbirum dog ak sénébar bi nga xam ne am na ci police bi moom nag li ko jaaxal faw nag ñu ubbi enquête boo xam ni ki nga xam moo di commissaire Kayta dafa taqaloon le commissaire Abdoulaye Niam yilif police bi ci wàllu drogue ci wàllu luubal boo xam ne ci wàllu sénébar la tegu enquête ba nag ñu ngi koy waajal waaye nag ki nga xam moo di procureur lenn moo ko jaaxal mooy faw mu am benn agent officiel officier de police bo xamné ne officier judiciaire lay doon ab policier lay doon waye day yëngatu ci walu yoon ngir ñu mëna atté kilifa yoy lool nak doyna war parce que nee na jëlé policier bo xamné ne dafa tok ak kilifaam mu war ko atté war ko laaj lool bu togué ñom ñoom ñaar dafa melni ni kersa dina juddu ci seen digënté ñeneen bu jëlé enquête bi dénk ko ñi nga xam ñoo di gendarmerie gendarmerie dañoo yagg waajal ñi nga xam ñoo di policier yi naan gone mbooyee ngeen dañ leen xaar ca taatu ndal la ca gendarme bu jappalé policier war ko atté boba da koy damate la leen cee ragal mooy sàndarm yi mun nañu juboo tamit ak policiers yi ba jaaxase enquête ba nga xam ni fa dëgg waroon a féete kenn ko xam ba tax na jamono yi kii di procureur Bassirou ca dëgg dëgg nag képp ku yuuxu walla fa nga ko yaakaare fa ngay féetale sa gémmiñ moom nag fa muy féetale gémmiñam boobu léegi nag xamagu ko parce que mbirum drogue bi ak policiers yi ëlëm na ko la tribune yéen kaay moonu wax ñi coowal drogue bi ci police bi ba léegi fayagul lan tey tag moo di chëtëtëtëtët am na beneen policier boo xam ni kilifa la koo xam ni kilifa la ci biir takk der yi génne na bataaxal boo xamante ni dafa ànd ni maanaam waxul turam waaye tuddaat na yeneen nit yoo xam ne ci wàllu luubal googu ñooñu nag faw nag ca dëgg-dëgg ay niir yu lëndëm nag dina leen tiim ñu ngi koy wéyale ba tey ba tax na nee na drogue bi ni muy dugg see fi nga xam moo di Afrique ci sous région bi maanaam Afrique sow jant bi nga xam ne ñun fi la ñu dëkk nee na Nigéria ak Ghana fa lay jaare waaye laata muy dem fi nga xam mooy Amérique latine Ndakaaru gi lay jaare ca loolu am na complicité boo xam ni policiers yi ne ci Sénégal seen loxo ngi ci biir ba tax ne nag manaara ngi nii naar yaa ngi nii coow drogue bi ci police bi ñu ngi koy topp pour xam nag fu wànni nu mu jékki gëtëm ba tey ci coow loolu nga xam ni fu ñu koy fayee kenn xamagu ko da di pataas bu tàng boo xam ni ku ne danga koy téye ci loxo ndeyjoor di ko jàllale ci loxo càmmoñ di ko laata nga koy sex ki nga xam moo di Omar Faye leeral askan wi ci la tribune yëkkati wat ay kaddu yoo xam ni dafa ñëw jam ko ki nga xam moo di ministre de l'intérieur le général Pathé Seck nee na Pathé Seck nag jamono yi dafa a démissionner parce que coow lu luubal bi ci drogue bi ba mu jibee moom xamoon na ko dëgg ci tànkam mu mel ni am na ñoo xam ne ci police bi ay nitam lañu ñoom la bëggoon a sauver waaye dafa mel ni jamono yi nag bi nga xam xam ni coow li nag jib na moom ca dëgg-dëgg amatul lay moo tax kii di président Macky Sall wal na jël ay responsabilités képp ku ci takk ñu daal di tekki sa ndomba tànk waaye kii di général Pathé Seck ministre de l'intérieur jot na nag mu daal di able loolu Omar Faye moo ko daal di yëkkati ci la tribune ma ni dukkat leen dukkat leen dafa mel ni Cheikh Ibra jàng ko loolu Baye Fall yi ñoo ko daal di yëkkati ci yéen kaay bi nu naan l'observateur ndogu espécial la góor yàlla yi nag daal di taxawal fii nga xam ne moo di dëkk bi ñi nga xam ñoo di Baye Fall yi jamono yi nag ci wàllu mberde ci wàllu li nga xam moo di wàllu ndogu ak berde yoo xam ne indi nañ ko nee noom rey nañ lu toll ak junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom benn fukk ci loo xam ni ay ginaar la lu toll ak fanweeri xar tër nañ leen rendi leen ñaar fukki nag ak juróom-ñett rey nañ ko loolu lépp buñ ko xool nag dina tolloog fukki millions yoo xamante ni ñi nga xam ñoo di baal faali moom la ñu génnee ci koor gi ngir nag ndogu bu jotee ñu mën a saafonte ak doomu aadama yi ak seen mbokk taalibe yi ba ñépp ñoo xam ni foo mën ci jóge rek bu ñëwee da ngay daal di bokk di nga lekk di nga naan sa sa xol nag ca dëgg-dëgg dina feex loolu l'observateur moo ko daal di fësal ñii gàmmu ji ak ñii laas déem dafa mel ni bokkunu képp ku leen bëgg a feeñal da nga yël leen kaay bii nu naan le populaire mu dëkk ci weeru koor goo xam ni teewul ñi nga xam ni ay nitu guddi nañu dundam tëddi jaamu ji seen borom lii nag nee na nekk na loo xam ni boo demee fi nga xamoo di ngoro Ngor di wala nga dugg fi nga xamoo di biir Ndakaaru li nu naan Dakar bàyyi naa dafa mel ni jamono yi dëkk baa ngi teg ñeneen fi nga xamante ni moo di almadi boo fa demee jigéen ñi nga xam bu guddee dañuy jaay seen bopp seen liggéey nag jamono yi te dëgg-dëgg doxatul waaye nag teewul jigéen ñi foo génn na ngay paccal wane li nga xam mooy seen i cër wane li nga xam mooy seen i wen ñuy génn tamit duñu génn génn boo xam ne couple lay doon maanaam dañuy jàkkaarloo góor ak jigéen waaye dañuy génn en groupe mbooloo lay doon ñu daal di dem di béggee dem restaurant dem pâtisserie loolu nag mu ngay woy ci ndakaaru donte ñi nekk ci li nga xam moo di weeru koor waaye paccal bi nga xam ni ci dëgg-dëgg nag dañ ko doon bañ ci koor gi jamono yi dafa mel dañ ko gën a fësal nag fi nga xam moo di almadi ak fi nga xam moo di ndakaaru ba tax na waxoon nañ leen ko ndakaaru jamono yi nag ñoor gi ci boppam moo lay tipp dagg ca buñ moytuwul caaya ji nag dina romb uum yi kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan dafa mel ni daas du yàq paaka duñ def lu dul dikk ak ci seen xibaaru xew-xewu jamono jamono yi dafa mel ni malaaka bi nga xam ni mooy faat bakkan yi day tali yi ci réew mi fa lay jaar di fa def loo xam ni kenn mus ko gis doy na waar la tribune yéen kaay suñ ko yëree liñ ciy teg moo di waaroo gay loxo nag faw mu dar gémmiñ cinq morts quarante blessés am na juróomi doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ nga xamul seen bakkan ñeent fukki nit am nañ ay gaañu gaañu ci kaar bi ñuy woowee kaaru al azar maanaam kaaru sëriñ bi fi nga xam mu di mbuur nekk na mbir moo xam ne ca dëgg-dëgg démb la xew képp koo xam ni fekk nga ko jooy nga waaru nga am nga lu la naqari ba tax na mbir mi ñaaw na lool ci mandarga yi nga xam ni moom lañ gis ci journal bi. journal bii ñu naan l'observateur dellusiwaat ci accident boobu nga xam dafa doy waar nee am na juróomi nit yoo xam ni faatu nañ bin gëstoo ba ci biir daf ci am jigéen boo xamante ni te dëgg-dëgg mi doon préparé concours boo xamante ni lenaan la ko waroon defee école bi nga xam mooy national d'économie koo xam ni ay njabootam am lu doon xar ci moom ci wàllu njàngam am na ci couple mauritanien jëkkër ak jabar boo xam seen bakkan des na ci ba ca gën a metti mooy étudiant bi nga xam moo di Alioune Guèye di liggéey doon jàng ci li nga xam mooy wàllu mécanique générale bakkanam des na ci démb képp koo fi nga xam mooy liberté fekk nga kër ga nit ñi di dugg di génn ñëpp di jooyoo baayam toog ci buntu kër ga am lu ko naqari ba mënul ci ay kaddu ñeneen nag bus yi li ñu indi ci accident ci dëkk bi doy na waar lu tolloog yi nit faatu nañ ci benn weer loolu nag nekk na mbir boo xam ni faw nag nguur gi daal di koy saytu ndax ci dëgg-dëgg nag métit la boo xam ne ci weeru koor gi dund nañ ko am naa giléem ma nga gànnaar waaye suñu gaynde sibur yi nga xam ñi ñooy fubal ba nu demee gànnaar ca dëgg-dëgg daje nañu ak kakkuti lion du Sénégal daj nañ fi nga xam mooy Mauritanie lu mburu dajul ci taal les Mourabitoun

jamono nak nag am na gàcce gu reuy parce que nak tollu won ci jamono jo xamni ni Mauritanie moy éliminer Sénégal loolu bu doon ci gënt sax duñ ko gëm dañu nan sarax ak yeen dugg ci buntu bi nga xam mo ni tijjil walu lamb fi nga xam mo di lamb ji nak gañu bi nga xam ni ko am na koo xam ni gaañaale na ko ki mo waro na dajel ñu nan ko xarañ lo ki nga xam mo di modulo ci yene kay bi ñu nan le populaire am na lu ko naqari combat bi nga xam ni ne def na ci lu tollok 130 millions téeméeri million ak fanweer yoo xam ne ko dépensé combat bi amul mu nekk loo xam ne ci wàllu gafakam ca dëgg dëgg nag inday nag xóotaay boo xamante ni loolu xamul fan la koy réglé ki nga xam moo di Modou Xarañ Lo ñu fekkat ko ci yéene kaay bii ñu naan suñu làmb nee na nag bu saison bu ubbee ba mu sëgg ki nga xam moo di Eumeu Sène foofu bu fa amee ndam ak bu fa amul ndam dina tijjiwaat yeneen buntu yoo xam ni am na ne ñoo xam bëgg na taseeg ñoom ñooñu ñi ngi ci tudd ku mel ni Balla ci tudd ku mel ni Tapha Tine ñooñu ñëpp war na mën a jàkkaarloo ak ñoom waaye ci yéene kaay bii ñu naan suñu lamb ki nga xam mooy doomu Double Less di magu Sa Thiès ñu koy duppee Triple Less mbër yi ci banlieue bi nee na mooy seen buur gaynde ca moo leen sut lees Balla Gaye numéro 2 na li wér te wóor mooy man ak Modou Lo dootuñu sëgg ñu yaakaar dafay caaxaan mu daal di def dëgg nee na jamais de la vie fii nga xamante ni ba nuy wol buft bi ba nuy li nga xam ni suuf sekk asamaan si moom ak Modou Lo dootuñu sëgg ndax am na ay mbir yoo xam yoo xam ni naqari na ko ba tax na lépp lu jëmale ci affaire Modou Lo bu ko kenn waxati jël na ko daal di koy tege nele kii di Balla Gaye numéro 2 The Lion King le roi lion dañ ko fekkaat ci tribune sport mu mel ni nag dafa woote ndogu këram lañ ko fekk muy ndogu ndogu boo xam ne dafa daal mucc ayib ni mu ko waxee woon Python bëgg na ko maafe ak fondé du ko bàyyi ginnaaw indiwaat ay waxtaan ni nekk xamoo di bombal ji nag ca dëgg-dëgg war na xoolaat ay mbiram bugg a bëreeg man tax mu yëkkati enchère di ko yóbbu ci niveau xam ne fa kawee ca dëgg-dëgg war na xam ne nag làmb boolewu leen man maa bugg bëree ak moom waaye ki nga xam moo di Balla Gaye doon laaj ci combat bi ñëw leeralul mbir moomu mais nee na jot na ñu fay ko xaalis bu bëri ca loolu dafa war dafa waroon nekk mooy loolu waa des arènes te prouvé na ci làmb ji loo xamante ni luñ ko fay nekk ca dëgg-dëgg jar na ko. ci yéenekaay bii nga xam mooy sunu làmb dañuy dem seeti ki nga xam ni bu jant di waaj a saw ñu ko naan papa sow ku mu rëppatal walaay du la tëppal tëppal waaye mbër yu bëri jamono yi dañ ko ragal nee ki nga xam moo di Aziz Ndiaye wala ñi nga xam ñooy promoteurs yi signé ay contrat yoo xam ni amaguñu ku ñu a taseel kii nga xam moo di papa sow ci kii di Balla Gaye ci la bokk ak rakkam bi ñu naan Sa ku ci ne jox nañ la xaalis nga waaye xamaguloo ban adversaire ngay taseel mu mel jamono yi dañ ko daal di bloqué ci li nga làmb ji ndax ci ñu bëri ci bëri bëggatuñ sax bëri ak moom waaye nekk na koo xam challenger la képp ku ko jël jël nga client vous xamné dina kay bi non suñu lamb ci suñu saison 2012 2013 yi 121 journées la 691 combat mo 17. kawoon ñoo am ñoo xam dañ leen dóor ñu daanu 42 promoteurs ñoo nekkoon ci làmb ji tëgg ay combat mu mel ni 26 sites tamit nekkoon nañ ci xam liggéey nañ ci ne buñ ko xoolaatee neen dafa positif waaye a bëgg nag mooy saison 2013 2014 ñu ñëwaat ci ay combat yu mucc ayib yoo xam ni amateurs yi supporters yi ñoom ñëpp ñu ngi toog di ko seetaan kon nag mbokk ak xarit ci nga xam ne yéen ñuy suivre ci suñu revue de presse quotidienne laata ñuy wéyale suñu revue de presse duñ def lu dul dikk ak ci seen info Twitter kon nag Marema comme d'habitude jekkil jekkiwaat bugguma boobu de bële la bësal bouton jox na ko ñu faram fàcce ko wolof njaay lu mu wax dafa wax ni doom ju jigéen baayam waaye doom bu góor ki nga xam ni mooy yaayam mooy xaritam mu mel ni sax doom bu jigéen baayam lay gën a nuru waaye doom góor tamit yaayam lay gën a taq yaayam lay gën a nuru waaye li leen indil tey dafa mel day daal di weddi loolu boo leen xoolee nataal bi ñu leen di woon nag dafa nekk ñaar ñoo xam ni kii mooy baay bi kii mooy doom ji waaye copie conforme la maanaam boo xoolee seen kanam ñoom ñaar dafa mel leen ko ci dëpp dëppan ñu ko dëppal ko kële mu nekk ñoo xam dañ nuroo te dañ leen di jaawale kenn Fallou musicien chef d'état-major des ambianceurs ak way bu góor bi nga xam ni mu sol li nga xam tenue tenue boo xam ni yére vous der la ñoom buñ leen xoolee ñoom ñaar buñ Si sax da leen di jaawale ndax nuróo bi nekk ci seen diggante mu nekk mbir moo vous dafa daal di yéeme leen ko gëstu bu ci ko gis leen lañ xam parce que kii di Fallou vous centimètre a kan moo ci nuru moroomam ci wàll woowu parce que Fallou Dieng gudd na gudd boo xam ne xëy na mënu gën a jege yàlla loolu nag information boo xam ni Dakar Actu moo ko daan indi ci fi nga xam moo di info ngeen gëstu ko kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan dafa mel suñu robe de presse quotidienne ak si fi nga xamni fofu lan koy ndar képp waaye nag balaa boobu. jamono yi télévision yi bari na lol fi nga xam modi di réewum Sénégal ba taxna na bi ci seen légui légui da fay mucc ayib waye ci xabar yi nga xam dañ koy jàllale dafa am benn comité bu ñuy wooyee Sénéra maanaam mu nekk conseil national de régulation de l'audiovisuel di kuréel bu xam moy saytu télévision yi lan lañ fay teg. mere nañ télévision yu bëri ci li ñuy wone ci wàllu ay accident yoo xamante ni day metti nit dee ñu koy wone nee na loolu bu mu amati ci li nga xam mooy face à face yi am ci diggante mbër yi ñuy wax ba waxante wax yoo xam ni day indi noonoo ak xeexoo fi nga xam mooy ci wàllu làmb ci biir dëkk bi loolu Sénégal nee nañ ko teg ci suuf ndekete yow waa Sénégal nag yemuñu foofu danoo joxoñ baaraamu tuuma kii nga xam moo di Youssou maa Jigéen Ndour ku ko xam-xam ni moo ngànk télévision bi naan TFM lan lan leen mere nee na Youssou Ndour dafa jël li nga xam mooy teleem ndekete yow ba mu fa ñëwee waxu politique la wax daal di ràcc jëmale ci kanamam li nga xam mooy le 25 juillet ci la ñuy clôturer inscription ci li nga xam mooy liste électorale yi jëm ci local ci 2014. loolu nag ba mu ko waxee ba pare dafa ñaax ñi nekk ci fekke ma ci boole ci ay nitam ci ay militant am ñu leen jëlee leen seen te taxaw di ma déglu loolu mu nekk propagande boo xam ne def na ko ci TFM te Sénégal rafetlu ko. leen gën a naqari mooy ki nga xam ne employé am naan ko pour faire ma ci pour Youssou pour élection yi nga xamni 2014 ci sen télévision ci Youssou Ndour di jëwriñ ci état bi lolu général néna na rafetlu ko ba tax neen jamono yi nak néna nak faw nak ñu jël ko ci souf lolu nak la ko di xam mbir mi kon nak mbokk xan ci ndon doon seetaan dafa mel ni suñu revue de presse quotidienne ak si nañ ca cëppaandaw fii dañuy tag tok yeen waye la may dem damay jaajëfal ñi nga xamni moy jambar yi ma àndaloon ci walu xarala bi di ci jittel ki nga xam moo di Pape Sow ci bëtu fang bi bëtu wax fang bi ñu nan caméra bu fa nekkon ki di ma Pen nek ci walu montage bi may jaajëfal ñi ni seetaan ci aduna bi yeb di ci jittel suma mbokk suma xarit suma doomu nday bi ñu woowee Ndiock malik jeng mi nek fi nga xam moo di Londres di Angleterre duma fatis mo suma ba Bara mi nek États-Unis fi nga xam moo di Albany te New York yéen ñëpp ñu nuy seetaan nag leen di ñaanal mucc ak xéewal ju ànd ak jàmm ju sax dàkk di leen wax ramadan bi ramadan yokkute taw feex ak li nga xam moo di sutura lay doon di leen wax nag revue de presse bi day dellu si